di euh, tax li nga xam ne mooy mbooloo mi xerit yi di jëm fu ne xerit yi ngi nii tëm waaw waaw gaz lacrymogène góor gi ñu jëm li nga xam ne mooy image yi que Ousmane Sonko dina jël final ñu ngi ñu ngi lay ñu ngi lay siyaar fii nga xam ne moom mooy ci la partie de Ousmane Sonko il paraît que wala benn cortège bi nga xam ne ñoom ñoo topp euh, ñii di nag euh, gendarme yi nga xam ne mooy jeunesse bi également ñi ngi taxaw ah mais fii nag lañ fi gën a ah, ràññee mooy que nga xam ne mooy gaz lacrymogène yi nga xam ne fii ñu ngi moytu bu baax c'est l'information qui compte le comme comme comme la ñu waxee nii rek ah, il paraît que dafa am oto bi nga xam ne fóol Ousmane Sonko a un blocus c'est-à-dire a un blocus journaliste yi fa nekk. Ah, si la taxaw rek ah, gis li nga xam ne mooy ay sànni xeer ginnaaw bi nga xam ne mooy gendarmerie nationale sànni ay tir gaz lacrymogène après na si la jeunesse bi xaw a disparaître. Mhm. Ousmane Ousmane Sonko dama la koy zoomal léegi nii si image yi. dama koy dama koy jéem a jumal euh, a tu as vu le drapeau Sénégal le drapeau national euh, du Sénégal foofu noonu ci si oto boobu noonu mu muy feeñ la ki nga xam ne mooy l'opposition nekk ah muy représenté le Sénégal. mais nag jàll la bëgg mais le cortège de la police nationale moom moo nekk fi nga xam ne moom mooy rond-point bi moo tax. d'accord. d'accord jaajëf jërëjëf eh, Hey, Fall, Fall. kër góor gi fii nag ah, ginnaaw. Ah, ah, comme guerre lacrymogène yi ngeen yaay booy yan la ngeen kàddu nga bëggoon sànni. bii rek comme guerre. yaay booy. mën nañu waaw ñu gis ne ñi mooy si ñu ngi fi nga xam ne moom mooy télé bi gis yéen a ngi gis également fi nga xam ne dañuy dem rejoindre li nga xam ne foofu la journaliste yi nekk. jéego amul jot waaye. gannaaw yan kàddu nga bëggoon sànni. lii dafa yomb. parce que alxuraanu karim ñoom. amee ñaar mu gàllem fu ko neex lay jaar soo ko dañ ko mu jaar fu ko fu neex. jërëjëf fii fi nday am. occasion. waaw mbokk yi ka amee ah, tax tax ah. yaa ngi gis ah, de la blurure blurure ah, yi nga xam ne mooy jeunesse bi génn nañ ci nga xam ne moom mooy si. Mermoz rond-point Mermoz sànq dund ngeen li ngeen xam ne moom mooy ba fa xew mu doon ay euh, affrontement yu xaw a euh, entre li nga xam ne mooy la jeunesse bi ak ñi nga xam ne moom mooy takk der yi takk der def leen blocus Ousmane Sonko euh, otom bi ñi ngay gis le drapeau Sénégal qui flotte fële na le foofu Ousmane Sonko nekk booba léegi nag mënul jàll mënul mënul jàll gars yi taal fii nag tax taal nañ fi nga xam ne moom mooy taal nañ fi nga xam ne mooy Mermoz Mermoz yi euh, nga xam ne mooy jeunesse bi taal nañ ko taal nañ euh, fi nga xam ne mooy Mermoz te dañ gis euh, fii nii fii moom wax mu yëg voilà ñu xaw a sori un peu li nga xam ne moo di les manifestants ñu xaw a sori un peu les manifestants voilà ñu xaw a sori rek ndax pour dire que xale yi ñoom pare nañ xale yi daal nee na ñoom fi ñu toll nii pare nañu te engagé nañu rek pour daal di gunge seen leader di Ousmane Sonko foofu noonu actuellement mi ngi koy le soriwul dara ci fi nga xam ne rek moo di corniche bi. jéego gis si taal taal yi. am nañ ay tàkk Bamba. waaw ak affaire yi ñu ngi ñu ngi tàkk mi ngi koy fépp. mu doon mbir moo xam ne c'était prévisible ndax ndaw ñi moom Ousmane Sonko dana da leen waxoon ne nañu koo daal di jógee ko fee ca li nga xam ne moo di terminal waaye Ousmane Sonko nag fu mu toll nii sori nañu moom torop torop torop ndax xamuñu fan la daal di nekk voilà. ñu bloqué fi nga xam ne mooy ñu bloqué li nga xam ne moom mooy corniche bi li nga xam ne mooy corniche bi ñu ngi bloqué li nga xam ne mooy corniche bi. ah dara wóolu tuul à danger. moo tax sax boo gisee ci dëkk bi ñu bëree bëri tey dañoo toog seen i bërëbu liggéeykaay wala toog seen i kër jëmuñu liggéey li ko waral bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne jortoon nañ ne tey daal dina ko daal di ginnaaw dégg di barricade yi nga xam ne xala ma oto boobu xala ma moom kay. xala ma oto boobu oh là là. nga jàll ñun si yow ay ay kan yu liggéey. ñu xaw a sori un peu ak ñi nga xam ne ñoo ngi manifestant mën a amal suñu liggéey voilà dafa mel ni gis nga xale yi nee na gaaw dem. Mhm. ñu dal di amal seen liggéey. Mhm. xale yi instant loolu la dal di amal actuellement ñun nag ñu ngi. nii